jamono ji am na wala amul. waaw euh, bonne question euh, je crois que li ñu war a mun a jàpp d'abord mooy dañuy dañuy dañuy convoquer la sociologie sénégalaise de manière générale euh, yi léegi lan moo tax ñuy dugg ci politique ou bien lan moo tax ñuy investir la société civile parce que lu ci bëri foofu la problème bi nekkee. alors donc approche yi dafa wuute te boo xoolee ni ko professeur Djibi développé lawoon dëmb objectif yi ñi ñu doon viser moo doon tabax nit tabax nit développer ay stratégie pour na mun na dugg ci raay directement ci objectif de développement yi aujourd'hui c'est plutôt l'individualisme man. waaw man fii laa jóge fii laa bugg a dem. yow tous les moyens sont bons personnel ngay am. pour tous les moyens sont bons pour ma arriver ci. alors loolu boo xoolee tey ci groupe organisé booy jàngat groupe organisé de manière générale même boo génnee cadre politique les groupes organisés de manière générale pratiquement il fonctionnent de la même manière donc aujourd'hui effectivement dans tout groupe organisé comme le nôtre day am ay manquements day am insuffisance foofu lañ tollu tey léegi nag insuffisance yooyu lan moo ko andi de débat est ouvert man sama gis-gis je crois que yéene yi ñu amoon dem nañ ba en un moment donné euh, d'autres forces de y a on, on s'est enrichi d'apports nouveaux on n'a pas su à moment donné peut-être les canaliser ou bien euh, adapter aux réalités changeantes aujourd'hui loolu moo jur li am li ñu am tey mm. d'autant plus que aussi nous sommes en parti certes organisé mais qui n'est pas structuré donc loolu moom yaakaar naa ne APR. Euh, loolu ça a toujours fait débat. waaw ñu ne c'est en partie mais organisation parti bi structuration bi des na problème waaw boo ñëwee tey boo jëlee groupe organisé bu mun a doon au plan politique ce sont les mêmes réalités socioculturelles nga fay fekk. les mêmes réalités nga fay fekk donc soo xoolee même boo convoqué régime Abdou Diouf c'était la même chose Wade c'était la même chose ñun aussi on est en de vivre social effectivement à un moment donné entre les populations à la base et aussi c'est ce qui exerce euh, la vie politique. waaw euh, Cheikh Abdou Mbacké euh, Bara Dolly est-ce que tey mën nañoo jàpp ni contrat boobu ni ko Abdoulaye Ndiaye waxee honorable député Djibi Diakhaté wax ko buñ doon jël kaaw bokk gis-gis di parti bi nga xam ne Pape Diop moo ko jiitee yow nga teewal ko ko fële ci assemblée nationale rupture boobu yéen sentir ngeen ko ci seen parti comme ci yeneen parti yi jiite réew mi jamono ji. waaw jërëjëf Mansour. comme ni ko professeur ubbee rek da di njàngat moo xam ni tey Sénégal yëpp war nañoo def ci loolu njàngat boo jëlee nag cas bi nga xam ne ci laa ci la nekk mooy le parti Bokk Gis Gis te président Pape Diop jiite ko wax dëgg yàlla euh, dunduñu kaab yi comme ni nga ko waxee ndax ñun bu fekkee na nga nekk parti opposition peut-être jëlagoo réew mën nga bañ a àgg ci li nga xam moom lay wax. ndax problème bi du feeñ la yi hmm. du bari. mais bis bu ndee ba nga xamante ne xëy na jël ngeen réew mi te organisé wu leen na ngeen war a def ngeen def ko soobaa li nga xam ne moo dal nii mën na leen a dal waaye loolu lépp nag dafa am fu mu war a tàmbalee ba nga xam dañ ko war a liggéey benn ci xelu nit ñi même bu fekkente ni ñi fi nekk nii dañuy dem ñeneen ñi war a ñëwaat bu ëllëgee ñu xam ni kat lii nga xamante ni tey boo jëlee carrière parti pour yorum réew a tax te réew boo ko yoree am na si ay conditions ak noo ko a yoree war nga mën a joxe un bon exemplaire pour ñi mën a topp sa ginnaaw pour mën a dem. mais dafa am politique ak politiciens yoo xamante ni jamono yu ñu nii comme ni nga ko waxee ngor moo jeex ci politique te ba ngor jeexee dina day tuxu te bu dina amul ngor amul leneen lu ñëw rek day yàq réew ma tu la yàq jikko yi ba yàq réew te situation bi ñu toll nii foofu la ñuy gisee te loolu mooy li am léegi nag lan mooy solution pour ñu changer ko mooy delluwaat ci waxi si Ahmadu Bamba ak yonent bi sallallahu alayhi wa mooy nit ku nekk nga jàppe sa bopp ki nga doon ba lépp loo xamante ni tey jii loo dul wax sa bopp wala dul def sa bopp nga bañ ko def ki nga xam moom nga moom moom nga moom nga nekkal loolu fekkente ne sàmm nañ loolu encadre loolu yaakaar naa tënk suñu bopp ci li nga xam moom la nga war a tënk mu di ak kilifteef ak ndigal yaakaar naa su boobaa am na yoo xamante ni doo ko gis waaye nag c'est dommage que léegi loolu bareetu si ndax ba fekkente ni tey euh, da nga damay dugg si lii pour sama intérêt bopp mais pas intérêt réew mi pas intérêt gox bi ma nekk bu ma bokkul wala aw ma dinaa ko yàq wala lépp dana yàqu suba boobaa askan wi bu réew mi yàqoo ñëpp la yàqul kon jàpp naa ne am na daal en tout cas yoo xamante ni lu ko professeur waxee ay mbir la yoo xamante ni tey jii képp wax yor nga politique euh, parti war nga jàng si lii am na lu fi amoon jamono Abdou Diouf am na lu fi amoon jamono Abdoulaye Wade mais jamono yu ñu toll ni jàppoon na ni yoo la amoon dafa waroon a jeex si instant bi ñu toll ni ñu continuer mais bu fekkente ni tey ku ñëw génn loolu yaakaar naa pour réew mi jàkk dana jafe. est-ce du euh, tamit euh, li tax ma mujjee ci euh, honorable député Moustapha Diakhaté yaakaar naa tur yi miin nga leen muy Abdoulaye Badji Omar Gueye Abdou Mbow Awa Gueye Abdoulaye Daouda Diallo Abdourahmane Ndiaye Benoît Sambou ñu jiite commission commission bi ñuy duppee commission de discipline ci biir parti bi di APR. boobu boobule commission tey jël benn dogal jëmale ko ci kenn ci yéen walla kenn ci ñu bokkoon ak yéen muy Moustapha Cissé Lo ne dañ ko dàq ci parti bi muy loo xamee ne yow mii dund nga ko naka nga jàngatee acte boobu ñu posé tey euh, jëm ci un député bokk ci APR nekk tak comme yow ci ñi ko ñi ko ñi ko ñi ko taxawal. Euh, d'abord du ma ko tuddee commission discipline dama koy tuddee commission guillotine. ndax euh, xam naa statut statut alliance pour la république xam naa règlement intérieur u alliance pour la république kayit wi ñu yóbbu ci ministère de l' intérieur déposé ko pour am récépissé nga xam ne mooy tënk rapport yi am diggante militants yi ak ak militants yi diggante militants yi ak responsable yi commission discipline amu ci alliance pour la république su fekkee nit dafa def tooxi doona ci parti bi suñ ko bëggee yar secrétariat exécutif national mooy def moo koy gëstu def rapport jox ko président du parti moom kese moo am sañ-sañu dàq moom kese moo am sañ-sañu sanctionné kon ginnaaw loolu defuñu ko la ñu tudd la nga tuddee commission discipline du ma ko tudd commission de guillotine laa tudd beneen bi dafa am lu garaaw lu nekk ci biir communiqué bi ñu bindee bi ñu bind bindaloon nañ ma ko ne Moustapha loo Lo est exclu définitivement exclusion définitive alliance pour la république commission conseil national rek moo ko mën a prononcer. pas commission de discipline. pas commission de discipline fekkee ni commission de discipline boobu. président parti bi moom moo sàkk waaw mais dàq moom commission conseil national rek moo mën a ni nit ki définitivement soo gisee may rappeler loolu muy république li nu tënk li nu tëyee li nu boole c'est la constitution les lois et les règlements du Sénégal bu dee parti politique statut ak réglement ak programme moo boole ña ca bokk bu dee diine lislaam alxuraan ak sunni seydina Muhammad alayhi salaatu salaam ak jàngale mag ñi lenn lu ca ne la leen boole bu ñu ko bàyyee rek riir am donc li dàq Cissé Lo pour man amul dàquñu ko parce que nañ ko war a dàqe dàqe ko loolu mooy premier bi li ci dañ koo dàqe ay wax Moussa Cissé Lo ñëwul seen TV wax fi deful conférence de presse wax deful meeting wax daa wax ci téléphone loolu c'est une communication privée. diggante nit ak nit code pénal da koy tere. Hmm. kon bu saaga ndax saaga moom lu bon la man maa ngi koy ñaawlu saaga kenn waru koo def rawatina nag ci politique kenn warut saaga parce que ki ngay saaga ndeyam ndeyam fàtt na bu yàgg yoonam ñëw ci wala bàyyam bàyyi fàtt na bu yàgg. yoonum niwu ci kon booy wax nit ci waxal ci nit ki waaye bul saaga bul saaga kon saaga waaye ginnaaw bu nit ki defee daa def dara bañ di ko dañ koy sanctionné ci saaga parce que saaga ba day taqal deru parti bi ña nga xam ne dañoo def lu yoon tere parti bi waru leen a bàyyi noonu parce que boobaa day mujj day niroog kumba am day kumba bay maintenant biram nag li ma metti gis nga lu mel ni amoon na 2012 xëy na Ablaye Ndiaye mën na cee xam dara am na euh, rakku Cissé Lo bu dëkk Grand Yoff dañ di wax madame Mbacke dañ booba booba mag booba Cissé Lo jotewul ngeen ñun Macky Sall la joteel keroog bi mu tukkee di ñibbisi këram la këram la ma fekk deux heures du matin laa fa jógee ngir defar diggante bi ñuy mocc di mocc ba lépp réglé 2017 lu xew lu mel nii xawoon naa am te booba président la al affaire amul ak ngeneen affaire ma di ca dox di mocc di mocc di mocc di mocc ba ñoom ñaar ñu toog waxtaan ba deux heures du matin xam nga lan moo ma metti ay mbooloo bu ñu àndee réeru mënu caa ñàkk waaye daa war am ñuy defaree kër goo gis nag muy tarixa yeeg daayira yeeg ay say ay coow a nga fa waaye lay tax coow ya du ñëw ca mbedd ma ci biir kër ga lañ koy réglé xam nga am na tubaab di wax la l'instal la lave en famille mais am na loolu président Senghor li mu wax na euh, Sénégal itam de dialogue parce que nit ñi nañu waxtaan kon encore une fois li ma jàpp mooy Moustapha moom kenn dàq ko comme ni ma jàppee ne man kenn dàqu ma parce que yow ma waroon dàq dàq wuñu ma ci beneen bi ci des beneen bi ci des suñ ko dàqee ndax wax ju ñaaw ji mu wax ñi génne wax ji def nañ lu ñaaw ndax yoon da koy tere waaw tere euh, wolof def ne uh-huh. ki nettaliwu saaga moo saaga moo saaga euh, honorable euh, député Abdoulaye